société nationale d'électricité ku doon way Pastef dee na suul nañ ko réew mi quotidien nee na baye boo daaneel sa way ndax woowale parti tey la gën a dund nii la ñu yéene kaay groupe réew mi network xëy xamalee plateforme bu bees bi ay parti samp ci Afrique tuddee ko Pastef Africa yemuñu nag ci fas yéene ko samp ndax danoo nar a sumb xeex ngir Ousmane ko moom boppam Pastef it ñu delloo waat ko kayit yi firndeel ne parti la fii ci Sénégal foofa réew mi quotidien daanelee l'info yëkkatee nenu pastef danu koo faat ci sénégal mu judduwaat ci afrique l'info ne fukki parti afrique ñoo booloo samp pastef africa yor yor bi ne ko li ci gën a neex nag mooy ña jiite woowale kuréel danoo fas yéene sumb aw xeex ngir ousmane sonko ñu teggi ko loxo bëgg ñu teggi ko loxo moom ousmane sonko moo tax mu dem ca cour de justice bu CEDEAO kalaame ji état bu sénégal biral itam ay càkkutéef bokk na ca yooyele càkkutéef ñu daal di santaane sursis ci seppi gi ñu ko seppi ci liste électorale yi atte ko bala ñuy yegg ci déposer candidature ci élection bi ñu mal fii ci Sénégal bés bi tuddee lii lépp opération sauvetage bu Ousmane Sonko ne nag Ousmane Sonko mooma du jëlee ndam ci lii lu dul cour de justice bi fexe ba lenn du ci tarde tardé googa daloon Karim Wade ci atum 2019 yéenekaay bi di fàttali ni ba cour de justice ba di joxe dogalam fekk na élection présidentielle ba weesu bëgg nu weesu coowal Ousmane Sonko moo waral Alioune ci biir Vox Populi di woote waxtaan nee na waxtaan dong moo mën a muccal Sénégal ci fitna ak gi mu dugg ak Ousmane Sonko méngale sax moomale mbir ak bomb bu mu jàpp ne dañu ko war a désamorcer moom Alioune Tine docteur Abdou Khadre Sanoko sociologue mel ni ku naan ko ci wal fu Walf Quotidien Tine loola du yomb ndax ci fanatisme la nu nekk nii la jàngatee ku jégu métti gi dox diggante Ousmane Sonko ak wal fu Walf Quotidien gis ne woowale coow sax dafa xaajale société civile bu Sénégal la Soleil jële ñu Sénégal yóbbu nu ba Amérique New York ne nu tàggatoo yu daw yaram la fa président Macky def ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu session assemblée générale bu Nations di di yu xeet yi laas ne bu weesoo tàggatoo itam président Macky Sall daal na fay yëkkati aw càkkuteef ngir ñu gën a taxawu Afrique ci ñàkkum ndox réew mi quotidien ne ko Macky Sall kay yuuxu def mar gi Afrique mar ca discours ba mu yëkkati ca Amérique sàkkoo nii ñu yittewoo jafe-jafey ndox yi Afrique am Macky Sall xayma doomi Afrique yi am jafe-jafe ngir jot ci ndox mu sell ci ñetti téeméeri million ak ñaar fukk lii quotidien ne ngir fexe lim googa jot ci ndox mu sell ci Afrique Macky Sall bëgg nañu dajale fukki junni ak juróom-ñetti milliards at mu jot les échos nañu Macky Sall it wax na fa ne ñaari fan weeru avril atum 2024 dana jébbal lenga yi ki koy wuutu ci Sénégal gannaaw fukki at ak ñaar yu mu jiite moomale réew sàkku na ca partenaire Sénégal ya fa ne ñu dalal ki koy wuutu téye ko ni nu ko teewee woon moom Macky ma tudd sengoor ca jamono ya muy tàggatoo la Le Quotidien nañu ci tàggatoo googa Macky Sall daal dinay feddaliwaat taxawaayu Sénégal ci ñaawlu lépp luy coppite wu méngowul ak li constitution di charte nday réew mi tëral Amadou Ba jamono ma ngay tërali pexe jëm ci élection présidentielle bi nu dëkmal l'observateur ne nu ab réunion am na ca Petit Palais barki démb ndaje ma bokk na ca lan ca doon waxtaanee fexe nu nuy delloosee Alioune Sarr Mary Teuw Niane Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao ak ñeneen leneen lu nu L'Obs yëgal it mooy Amadou Ba tey dana dem ca Tiwaawan Meewaan ak Pire réew mi quotidien nañu moom ak délégation bu mag la ñuy xaar tey ca dëkk bu sell ba di Tiwaawan réew mi quotidien gis ca daanaka ndorteelu campagne électorale jëm ci élection présidentielle bi nu dëgmal boobale élection 24 heures gis ne Abdourahmane Diouf candidat la bu ci kenn mënta génne PDS booba jamono di waajal ñibbi si kandidaawam bii di Karim Wade ñibbi si gu am riir nag enquête nee moom la libéraux yi bëgg te Karim la tey yegg si Ndakaaru dana jaar Italie jaarit France waaye toogam ak tekkaaralam ca Qatar moom Karim wadd mi ngi wey di jaaxal source a yéene kaay bi ne PDS sax daanaka Karim da ko mujjee yóbbaale ci deegi mu nekkee ab néew moo leen gën a yëngu ci gëtu yéene kaay bi Les Échos booba jamono mel ni ku naan li ñuy tuumal Abdoulaye Daouda Diallo ni tuddut benn yoon Amadou Ba bi yëngal biir yéenekaay bi di Les Échos ne Abdoulaye Daouda Diallo bu ne dafay sóobu ngir ndamal Benno Bokk Yaakaar ci 2024 defalu kow jinax defalu kow kaña Amadou Ba la koy defal te moom ak Amadou Ba mooma daanu daje du yàgg dara daanu it waxtaan buñ sukkandikoo ci Abdou mbaw ci biir Les Échos Sud Quotidien xëyee jàngat li mën a may Amadou Ba mooma mu gagné premier tour élection présidentielle bi nu dëkmal Aly nguy njaay moom daa ba ba nu nekk ci campagne agricole mu wàcc mbay mi Bassirou Ba njiital aar sunu moomeel nii la ko ci biir l'évidence Fatou yeewi askan wi woowale jamono ci biir yor yor bi muy ŋàññ Macky Sall ak ni mu soppee Sénégal def ko réewu mandat de dépôt yor yor bi naan ko moo taxit keroog ba mu demee Nations Unies patriote ya dañu ko faa kar yuuxoo ko yéen bi dellu si ca nanu ko doon rëbbee ca Amérique point actu gis ca ne Macky Sall daa wéetoon lool ci kanam gaay yi Sonko yi waral tukkeem ba ca New York yëngu woon lool point actu naan ñu bokk na ca la ko sabab ñàkk far ba ngoom mi daan mobiliser ak itam kura Macky mi gaay yi néewal doole pamt pamtee ko ba xamatut fu muy taxaw taxaw ci le regard ak Guy Marius Sagna mi dàq bépp xalaatu plan B ci biir Pastef nee na xel xalaatul Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection présidentielle bu 2024 Guy Marius Sagna nee na Sonko candidat la cay doon muy neex mbaa muy naqari naqar lanu la tribune yeggee di juróom-ñetti cantine yu lakk ca marché bu mbàkkee ak ñetti bakkan yu rot ci gaz bu explosé ca jëppal derkle l'observateur ne nu bilan ba nu mujjee woon am ñaari nit a ca faatu woon waaye ministère des affaires étrangères ak alliance libération nee na arcop faat na ko ndax woowale marché wu ñeel assurance santé bu diplomate yu sénégal yi nekk ca bitim réew ak seeni njaboot dañu ko bëggoon a yokk waaye dcmp ne leen du ca dal def leen beneen appel d'offre international yaatal leen géew gi ñëpp gis ci seen bopp lii la leen wax buñ sukkandikoo ci libération réew mi quotidien di ñu xamal woowale jamono ne Sadio Mané ak Al Nassr gis nañ seen bopp ci AFC Champions League ba ndax ñoo daan démb Persipoli FC stade Paris Saint-Germain dafa daan Dortmund Milan ak Atlético moom taxuñoo neex le noonu stade di yëgle itam jongante yu neex yu war a am tey diggante Real ak Union Berlin Bayern nag Manchester United waaye làmb ji war a dox diggante Modou Lo ak Ama Baldé moo jaaxal sunu làmb yéen kaay bi ne tiitaange sax da caa mujjee am la ko sabab mooy fitna gin ci nemmeeku xeex yi ak dàq yu bari yeeg gaañu-gaañu yi mbër yi amee sa sunu ne tey lañu war a sëgg bëre wërngal gi ñeel yéen yi foofa lay buuree dig daje ëllëg incha allah